إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهدي وأؤمن به وأقلع ووعادي ما يكفره الحمد لله الذي ابتدى بحمد نفسه قبل أن يحمده الحامد والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها حبيبي ومصطفاي ونور قلبي وقرة عيني سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهدايته إلى يوم الدين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا mbokk jullit ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu yëkkatee kàddu yooyu di santaat sunu boroom yàlla moom mi nga xam ne dégg nga moom dong mooyee ñu sant ko ndax mooy sunu borom moom moom nit ñi ginne yi ak malaaka yi moom fépp ak lépp moom sunu boroom yàlla sunu borom boobu ñu ngi koy ñaan muy julli di sëmal si Seydunaa Muhammad moom wax waa këram ak i saxaabaam dégg nga ak képp koo xam ne fëskee na ngaa wommatu ci yoonu njub ba kër bés pénc mbokk ba tey ñu delluwaat di santaat sunu borom moom mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak fekkee ñu mën ànd ak yéen seen tafsiru quraanu karim ki leen defal waxtaan bi seen mbokk seen taalibe Ousmane Gueye xam ngeen ne ñu ngi woon ci suuratul Yuusuf ñu ngi taxaw woon ci ñaareelu pàcc ga tey bu neexee sunu boroom yàlla ñu tàmbali ci ñetteelu pàcc gi ñu ngi taxaw woon ci aaya juróom fukk ak ñaar fa nga xam ne ci suuratu Yuusuf fa nga xamee ne dégg ba buur bi sàkkoo yónni am ndaw ca boo ca ca yuusuf ne ko mu ñëw yuusuf ne ko du ma génn mukk ci prison bi ndere ne damaa bëgg ñu setal ma ba ma set wicc na nga oo jigéen ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo ya la mooy seeni mbir ba buur ba oowee jigéen ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo daggoon seen loxo ya ba ñu ñëwee mu laaj leen waaye yéen loolee xam ci yuusuf jigéen ñoom ñëpp dégg nga daan kooku de xamuñu la ko lu bon lu baax dong lañ xam ci moom foofu la Zuleyxa waxee ne ah mbir mi leer na nag mbir mi leer na yëg leen mën mii maa doon sàkku Yuusuf ci boppam mu ngoog kon ah, man maa ko tooñ Yuusuf ma wax dëgg Yuusuf nag daan lii may sàkku boo gisee may sàkku lii dégg nga ngir ñu setal ma damaa bëgg rekk sama sang ba xam ne mën mii waruma ko woon ca ginnaawam dalika li yaalama anni lam axunhu bil xaybi wa anna allaha laa yahdi kayda alxaainin Yuusuf ne ne lii dama koo def ngir sama sang ba xam ne waruma ko ca soxonoom ca ginnaawam léegi Yuusuf mooy continuer di wax Yuusuf nag nee na dëgg la setal na boppam de waaye nag du tax mu tagg boppam du tagg boppam te du tagg bakken ndax bakken moom lu ñaaw dong lay dëkkal doomu aadama loolu la sunu borom di nettali ci ay juróom fukk ak ñett sunu borom ne bismillahi wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bissu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahim yusuf ne wa ma ubarri'u yëgal ne du ma setal mukk nafsi sama bakken yusuf nee na du ma setal sama bakken ndaxte inna nafsa yëgal ne bakken la ammaratun bi suu diglaa koon la lu ñaaw mu duma du ma mukk sama bakken ndax bakken day digal lu ñaaw boroomam xam ngeen ne alxuraan nettali na sunu borom yaa nettali nañ am na ñetti façon bakkan yu am dafa am ñetti façon bakken yu am si doomu aadama bakkan génn gii moom la Yuusuf wax mooy nafsul ammaratu bi suu mooy bakken boo xam ne lu ñaaw dong la digal doomu aadama yaa nu yàlla musal ci loolu bakken boo xam ne dalaa naan mooy digal buur asmaan ak suuf toppal iblis moom dong loolu dong la lay sant mu am bakkan boo xam ne dégg nga maam day yedd doomu aadama da yedd ñetti façon yedd yi la la yedd loo xam ne weesu na mu lay yedd waaye lii la moo tax nga nga sàgg ne ko ba mu rëcc la te defoo ko mu la yedd ci loolu muy benn wala mu yedd la nga def lu bon mu ne la yow lii waroo koo def de war ngaa jomm lii de lii waroo koo def war ngaa gàcceel sa bopp pour def jëf ji mu yedd la ci lu ñaaw loo def wala mu yedd la ci lu baax loo doon def mu ne laa yow la moo tax lii yokkoo ko lu baax li nga doon def la moo tax yokkoo ko mu lay yedd ci loolu loolu la sunu borom di nettali si suratul qiyaama laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bi nafsi lawaama sunu borom ne ne laa uqsimu bi yawmil qiyaama laa googu zaida la danga nga naan uqsimu maa ngi giñ mu ngoog ci bés waaye nag laam googu nag gisu topp moom day liggéey wala uqsimu bi nafsi lawaama waaye nag du ma giñ ci bakkan ba nga xam ne day yeddaate mu waaye am ñu ne déedéet laam googu day liggéey ba tey am ñu ko liggéeyloo am ñu ko dax mu nga mooy ñaaru bakken beneen bakken boo xam ne mooy bakken bu sell bi ka nga xam ne moom bakkenam du ko diggal mukk dégg ma maam lu baax jullil wooral jàngal alquran mu nga del del jokk mbokk dégg nga lu baax dong la koy digal mbakket boobu mooy bi nga xam ne sunu borom moom lay nettali suutul fajr yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati allahu akbar mooy bakkan bi nga xam ne sell na sellaay goo xam ne bu demee bay bay bañ koy faat malaaka di ñëw nag yow ruux bu sell bi génnal gaaw mu nga nga dem ci sa lu borom mu nekk nga nekk ku ñu gërëm te nga dugg ci ay jaam te dugg àjjana yanu yàlla may bakken googule loolu la Yuusuf di wax ne man du ma tagg sama bakken ndax bakken day digleekoon lu ñaaw illaa ma rahima rabbi lu dul koo xam ne suñu borom yàlla koo yërëm ba mu sore kaa bi nga xam ne bakken bu ñaaw la kooku dong mënu mucc si bakken bi mu ne inna rabbi yëgal ne sama borom yàlla daal xafuurun jéggalaakoon la rahimun kuy yërëm la ay jaamam sunu borom yàlla képp kuy yërëm rek moo la dàq yërëm yërmande sunu borom yàlla dafa yaatu ci lépp gis nga sunu borom nu mu yërëmee doomu aadama yi kenn mënu koo nettali gis nga léeg-léeg di nga gis ndey ndeysaan ah, di yërëm doom ji ci bu amee lu ko mitti yaa ju du am jàmm mu nga di xiif di mar lépp di koy def sacrifier ngir doomam ngir yërmande gu mu am ci doomam yërmande gu raw la sunu borom yàlla am ci ay jàmmam mu nga ah ba Yuusuf waxee lii ah, ña netti la ko buur bi ne waa ji de lii la wax buur bi daal di kontaan daal di yéemu ci li mu dégg ci waa ndax wax ju noso ju aw wax ju dëggu ci buur bi mooy netti lii ci ay juróom fukk ak ñeent wa qaala almaliku tuuni bihi astaxlisuhu li nafsi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين nee na waqaalal maliku buur ba daal di wax ne utu nii bi dama bëgg ngeen indil ma kooku noonu ki ma file sama gént gi te mu wax ma lii dama bëgg ngeen indil ma ko astaxlisuhu li nafsi yaani ajaluhu xaalisatan lii wa ahli mashirati damaa bëgg ngeen indil ma waa jooju ma tànnal ka sama bopp boole ko samay mbir daa koy boole si ñi nga xam ne ñoo ñooñu lay diisool samay mbir ndax kii ku set wicc la te tamit ku dëggu la indi leen ma ko ah bu Yuusuf ñëwee fa lamma kallamahu Yuusuf commencé tàmbali di waxtaan ak buur bi ba ñu waxee ba sottal qaala innaka al yawma ladayna makinun amin yëgal na yow mii bis ni tey am nga bërëb bu mag fii si place bi te yow ku nga danañ la jox ay poste yoo xamante ne yaa koy garde buur bi di am confiance Yuusuf alayhi salaatu wasalaam daa di koy jël daa koy taf ci wetam daa koy boole ci ñi nga xam ne ñooy conseil conseil mooy président bu nekk day am ay conseil mooy ñoo xam ne ñooy dara buur bi bu bëggee def antu dara ñoom ñoo naan kan lii baax na lii baaxul waxee kan nii doxaleen nii di ko conseil mu ngoog Yuusuf wax na nag buur bi nag naka moom ah doo ma def nag doo doo ma fal nangam waa damaa bëgg nga xool si li nga xam ne si laa si laa gëstu sama si loolu la ma la ma mu ne buur bi da ko laaj juróom fukk ak juróom qaala ij'alnii alaa xazaa'inil ard innii xafiizun xoola yusuf na ko ijaal nii damaa bëgg nga def ma ala xadainil ardi ma ma nekk kuy saytu jaa ngi dégg mbirum suuf mi mooy ki nga xam ne mooy saytu wàllu dégg nga dund géeg wàllu bay gi xam ngeen ne yusuf da ko waxoon ne ko da ngeen war a bay juróom-ñaari at yu tegloo dégg nga ak bu ko defee def da am yeneen juróom-ñaari at yoo xamante ne bekkoor lay doon te gént googu pour mu antu moom ci boppam moo war a organiser affaire bi nan lay dem moo tax mu ne ko damaa bëgg nga daal may def ministre de la culture mu ngoog Youssouf daal ne ko damaa bëgg nga fal ma ala xazainil ardi damaa bëgg nga boole ma si ministre agriculture maanaam ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu dund gi mu ngoog mu ngoog wàllu dugub yeeg mboq geeg la ñuy bëgg lépp Youssouf nag damaa bëgg daal may fay loolu fal ma loolu il nii yëgal ne man Youssouf daal xafisun ku ko mën a wottu laa da dara du sànku waaye tamit alimun ku ko xam laa am naa si expérience ah buur bi ne ko kon garaawul yaa yaa yaa yaa yor mbir moomu yëgal ne fal naa la yaay soltu wàllu dund géej yooyu yëpp yàlla di nettali comme que Yuusuf jóge na si ab teen am fa ñetti fan dégg nga ñu jaay ko sa marché ba mu ñëw nekk si ab buur si pale ba dégg nga ñu jël ko yar koy tëj ci prison léegi nag Yuusuf génn na si prison bi dégg nga maam léegi nag mu ngi nekk ci biir pale bi sunu borom day nettali ci ay juróom fukk ak juróom benn sunu borom ne wa kazalik naka noonu makkan naa li yusuf la ñuy jàppandalee ñeel yusuf fil ardi sa suufu misra yatabawwa'u min tourné wa yatabawwa'u muy wàcc minha ca pale ba haysu yasha fu ko soob jóg na sa prison ba léegi sunu borom nee na maa maa jàppandil yusuf léegi nag mu ngi tàmbali fu ko neex sa pale ba mu daal di wàcc fu ko neex mu daal di dem am na liberté totale sunu borom ne nu siibu ñun yàlla ñooy sotti ñu siibu ñooy cërale bi rahmatina sunu yërmande man nasaaw nu ñu soob ku ñu soob rek su sunu borom yàlla may xool sama numéro dara ko siy sotti mbokk yi yërmande su loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk nekkul su loxo doomu aadama nekkul su loxo yi jinne nekkul su loxo yi malaaka sunu borom yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko alal xool ku ko neex mu jox ko xam-xam xool ku ko neex mu jox ko daraja ak ay ndobbal tànk àddina kenn mënu ci dara moo tax mu ne nusi bi rahmatina wala nudiu yëgg na ñun yàlla duñu du ñu sànq ajral muhsinin yoolub ñi nga xam ne dañuy rafetal sunu borom nee na ñii du ma sànq mukk seen ak képp koo xam ne la ngay wax wala la ngay jëf sunu borom yàlla dong moo tax nga koy def moo xam feeñ la moo xam nëbbu na lu muy yàgg yàgg yàgg sunu borom dana ko feeñ ko sànq danañ yàlla ñi di rafetal ba tey ne wala ajrul axirati yëgal ne payuk alaxira xayrun moo gën de lillazina amanu si ñi nga xam ne ñoo gëm suñu borom yàlla wa kaanu nekkoon nañ bañ nekkee si àddina yattaquun dañoo ragloon suñu borom yàlla yàlla mun a yëgal ne ñii nga xam ne dañoo nekk fii si àddina dégg nga maam suñu borom dafa leen ay teraanga fii si àddina ñuy am lekk gu baax am kër yu baax dégg nga du dund dund gu baax te ñu nekk ay jullit dégg nga yàlla ne maa leen fayee fii loolu ci àddina waaye loolu dama leen si mosal dong pay dëgg dëgg dëgg sunu borom ne ne moo yomal xiyaam foofu la yàlla dafay dëgg-dëgg jullit ñi yàlla ñu boole ci ñooñu ah léegi nag sunu borom bàyyi na loolu mu ngi dugg ci leneen wax léegi xam nga Yuusuf waxoon ne leen dina am juróom-ñaari at yoo xam ne bekkoor lay doon ah loolu nag moo dal ëhru Kanaan mbokk Yuusuf loolu moo leen dal bekkoor ba la leen laal ah léegi ñu ñoom ñu laa tabb seen i dëbës dégg nga fas yéene ñëw si misra pour pour wut mi nga xam ne mooy ay marchandises ah te yàlla def na li ci gën a doy waar mooy ñoom xamuñu Yuusuf xa fàtte nañu Yuusuf pour ñoom Yuusuf dee na bu yàgg xamuñu benn amatuñu benn information ci moom ba ñu ñëwee nag la moo fa xew suñu borom mooy nettali ba Faidherbe ñëwee ca misra fekk Yuusuf ñu ngi ko fal li nga xamante mooy premier ministre. loolu alxuraan di nettali mu ne wajaa dikk na ixwatu yusuf frère yusuf ya ñëw nañ ba ñu ñëwee ca dëkk ba fa daxalu alayhi ña dugg ca pale ba fa arafahum fa sa saase rek arafahum yusuf ba mu leen gisee la leen xàmme yusuf da gis rek ni ne ñii ñooy doom bàyyi allahu akbar waaye nag wahum ñoom munkiruuna ay sib lañ lahu si yusuf maanaam xamuñu ko magum loo mun ko dañ koo réere Yuusuf xàmmee na ay rakkam ma ngoog ak ay magam waaye ñoom xàmmewuñu ko wum loo mun kiru maanaam dañ koo réere xàmmewuñu Yuusuf ah sunu borom day nettali bi ñu ñëwee am na lu xew Yuusuf gis na leen ñu yor ay njëgg fukki njëgg ak benn te ñoom fukk lañu Yuusuf commencé tàmbali di waxtaan ak ñoom waaye na ngeen def fa leen ñu ne ah ñun ne ñu ngi jógee ci dëkk bi ñuy wax Kanaan nangam ak nangam ñuy waxtaane di waxtaan di waxtaan di waxtaan waaw mu ne la yéen moom ñaata ngeen ñu ne ka ah, ñu ñun de fukk lañ fukk lañu de Yuusuf ne leen waa yéen ndax ngeen mën a nekkee fukk te yéen seen njëg yi fukk ak benn ñu ne ko ah bii sunu njëg njëg gii sunu rakk moo ko moom Binyaamin moom sunu mbaay moo ko téye ca ca ca wetam bëggul mu sori ko moo tax àndul ak ñun mu ne leen ah ah mu ne leen ah damaa bëgg seen rakk boobu de booy ñëwaat bëgg naa ngeen indi ko te xam ngeen ne Yuusuf da bëgg a jël rakk ji moo mooy Binyamin moom la bokkal ndey moom la Alxuraan di nettali ci ay gii su topp ci ay juróom fukk ak juróom-ñeent moo tax mu ne walam فلما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير منزلين يوسف ne leen walamma jahazahum ba mu leen waajalale bi jahaazim seen njëgg ya ba mu leen yebalee seen njëgg ya la ñuy mu yebal leen ko lañuy ñuy natt mu nattal leen ba ñu fees la del del del dégg nga qaala mu ne leen utuunii dama bëgg ngeen inil ma bi axil lakum seen frère bi min abikum ka nekk si seen baay yusuf yebal leen seen njëgg ya ganale leen ñu lekk ñu lekk ba suuf ñu naan ba màndi mu yebal leen natta leen ba seen kopp del ba seen mu ne leen nag damaa bëgg damaa bëgg seen rakk boobu ngeen xam ne mu ngi seen baay damaa bëgg ngeen indil ma ko alaa taraw na xanaa gisu leen annee awfil kay la xanaa gisu leen ni ma leen matale ak natt wa ana xayrul munzilin man maa leen dàq ganele tamit xanaa gisul ni ma leen ganele Yusuf da leen dugal ca biir pale ba ñu dugg sa biir ba dégg nga maam mu indi leen ay lekk ñu lekk ba suur ñu naan ba màndi dégg nga mu gane leen gane ganele goo xam ne daal jéggan day moo tax mu ne xanaa gisul ni ma leen ganele waaye nag attention wa in lam taatuuni bii bu fekkee indiloo leen ma seen rakk boobu falaa kayla lakum indi du ma leen nattal wala taqrabuun te doo leen ma jege doon dugg si biir pale bi ne leen ni boo leen demee seen kër baay ngeen ñëwaat fii ci dëkk bii te indi woo ma seen rakk boobu di Binyaamin dégg nga du leen nattal te bu boobaa du leen doo doo leen doo leen jege pale bi doo ma jege kon dar foog ngeen indi ma seen rakk ba ngir ma soog a gëm ni li ngeen wax ni dëgg la gaa yi war a tontu li ñu tontu Yuusuf mooy aaya juróom benn fukk ak benn moo tax ñu ne qaalu sanuraawidu anhu abaahu wa inna la faa'iluun qaalu ñoom ñu ne sanuraawidu daanu si moom abaahu baayam yow Yuusuf na sa xel dal sunu rakk bi nga xam ne da ngay da ngay sàkku ngir ñu indi ko na sa xel daal bu ñu demee si sunu baay daanu sa daanu ko sàkku ci moom wa inna yëgal na ñun daal la faa'iluuna daanu ko def loolu moom na sa xel daal incha allah bu neexee sunu borom yàlla daal bu ñu àggee si sunu baay daanu sàkku ngir mu jox ñu euh, Benyamin ngir ñu indiwaat ko bu ñuy ñëw ah ba ñu waxee lii Yuusuf ba tey wóolu leen Yuusuf wóorul fa lay fareer de ndaxte ñoom ñoo ko jël sànni ko cib teen ku la jël sànni la cib teen dégg nga maam ñetti fan yemul ci loolu ñu jëlaat la jaay la comme marchandise kii lu mu la wax bul ko gënati li waa waa naan ah, dëgg ku ñu ku ñu olof Seydina Muhammad dina ab julli waru sàggan ñu koy ñu koy ñu koy jam ñaari yoon maanaam bu ñu la naxee bul xalaat mukk bu ñuy naxaat la Yusuf daan dama bëgg ñii li ñu fay nii pour seen marchandise bi maanaam xaalis ba ñu indi woon ñu ne xaalis la déedéet am ñu ne déedéet xaalis waaye Euh, leen la leen ak diw moom lañu indi pour def ko weccee ngir ñu jox leen ak dund Yuusuf daan na jël leen loolu ngeen dugal ci biir marchandise yi maanaam delloo leen seen xaalis rek la bëgg wax stratégie bi lu su Yuusuf tëral ngir bëgg bu ñu demee ba seen baay bu ñuy yulli bagages yi ñu gis ne ah xaalis bi dañ leen koo delloo ñu xam ne dañoo juum bu ko defee dañu mën a ñëwaat indiwaat xaalis bi ndax Yuusuf xam na ne bu fekkee seen baay xam na xaalis bi moomuñu ko dana wax delloo leen ko loolu la alxuraan di nettali ci aaya bi ci topp moo tax mu ne waqaala wax na li fityaan yi ñeel xale ba mu ne ko ijaalu def leen bidaatahum seen marchandise gi ñu indi nii fii rixaalim seen njëgg ya laallahum mën naam ñoom yaanifuunaha ñu xam ne lii moomuñu ko bu ko defee dinañ ko indi idan qalabu bu ñu demee ba wëlbatiku ilaa ahlim seen waa kër ga la laallahum yarjiu mën naam ñu daal di dellu siwaat indi li nga xam ne mooy marchandise bi li nga xam ne dañ koo indi ngir bëgg di see def weccee ak seen dund gi def lañ ko ci biir njëgg gi bu ñu demee ba àgg ñoom bu ñu xoolee xam ne lii kat mooy la ñu woon dañu xam ne moomuñu ko daana ko indiwaat man naam ñu ñu indiwaat ko ah ñu daal di départ daal di dem si seen baay léegi nag ba ñu demee ba àgg ñu ne ah suñu baay tey jii de journée bi neex na de ah ñu ne ko ñun daal ba ñu demee misra daal buur bu baax lañu fa fekk dégg nga mu daal ñuy ganale dugal ñu si biir pale bi dégg nga ñu daal di lekk ba suur daal di naan ba maan mi waxtaan ak ñun dégg nga yemul su loolu nag mu daal ñuy nattal suñu kopp yi ba mu fees dégg nga diwul suñu njëgg yi ba mu fees del suñu baay daal ñun daal tey journée bi neex na ba ñu àggee nag ñuy nettali loolu seen baay waaye ñu ne nag baay du loolu kese de seen baay nee na ah lu ñu ne ko ah buur ba nag nee na bu fekkee dañuy demaat ca moom suñu rakk ji buñ ko yóbbuwul dégg nga duñu nattal te duñu dugg sa palem te xam ngeen ni suñu ba Yaquub alayhi salaam dégg nga dafa fonk Binyaamin lool ndax comme que sanq na Yuusuf mu daal jël Binyaamin daal ko teg ci wetam di ko wéttali ko ci Yuusuf lan mooy xew loolu la Alxuraan di nettali ci ay juróom fukk ak juróom benn moo tax mu ne falamma raja'u yëgal ne ba ñu delloo ilaa abihim si seen baay xoolu ñu ne yaa abana e yoo sunu baay mu ne a ah, ayef nañu ne min naatuñu alkeela nat illam yursil maana axaana tafsiru xurtubi nee na yoo sunu baay bu fekkee yebooloo binyamin nii ne la wóor ne dootuñu nattati te kenn duñu peesal kon nag fa arsil jabalal maana ànd ak ñun axaana sunu rakk ji di binyamin bu ko defee daa ñu nattal lu bari daa ñuy peesel lu bari tamit wa inna ñun daal la xaafizuuna aji wattu nañ lahu si binyamin mi ñoom de waxaat nañ seen bàyyi xam ngeen ne wax jii daanaka waxoon nañ ko yusuf njël benn yoon waxoon nañ ñun wa inna lahu la xaafizuun yàlla yebal ne sunu bàyyi dañoo bëgg nga yebal ñu ñu ànd ak yusuf daana ko wattu ndekete yow dañ koo sànq ñëwaat ni seen bàyyi nag ñun ka dañoo bëgg nga daan nga daan ñuy yebal ñu ànd ak binyamin daanu ko wattu a ah! te ndaxte boo ñu ko yobarul kenn du ñu nattal dégg nga te buur bi nee na du ñu jege pale ba kon daal leen dëng moo fi sës nga àll ñu bindiyaam mi nii bu ñu dem ñu daal koy yóbbaale seen bàyyi war a nettali lan la leen seen bàyyi wax li leen seen bàyyi wax mooy nekk ci ay juróom benn fukk ak ñeent sunu boroom ne قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال وحنا سن باين لين هل آمنكم دملن أولو عليه سبنيامين بي إلا نرى كما أمنتكم دملن أولو ون على أخيه مغم دي يوسف من قبل كجيتون ولو ملن دي aw ma xel mu dal ci yéen ci sama doom ji di Binyaamin lu dul nag na ma leen ñàkkee wóolu woon sa Yuusuf waaye nag fa allahu bur yàlla xayrun xaafida moo dax wattu ki wattu sunu borom yàlla daal moo dax wattu ki wattu woowoo moom sunu borom arhamur rahimin moo dax yërëme ku yërëm képp ku yërëme sunu borom moo la dax yërëm waaye wóolu ma leen de waaye nag dinaa leen bàyyi ngeen dem ca noonu ñu ne waa kon nañ nañ nañ dindi xool marchandise bi ñu jënd ña tàmbali commencé yëlbati di yëlbati di yëlbati rek daal di gis lañu ñu jëndoon dégg mu daal di nekk ci biir marchandise bi i ñoom dañoo yaakaaroon ne jox nañ ko buur ba ndekete la ñu jëndoon xaalis ba mu ci biir marchandise bi loolu la Alxuraan di nettali ci ay juróom fukk juróom benn fukk ak juróom sunu borom ne walamma fataxu mataahum wajadu bidaatahum ruddat ilayhim qaalu ya abana ma nabgi hadihi bidaatuna ruddat ilayna ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير walamma fataxu sunu borom ne yëgal ne ba ñu demee ba tijji mataawum seen bagage ya seen bagage ya ba ñu demee ba commencé yëlbati di dindi di dindi di dindi wajadu ñu fekk bidaatahum seen xaalis ba ruddat ilayhim ñu delloo leen ko ñu ne ah qaalu yow sunu ñoom ñoom ñu ne qaalu yow sunu baay ya ya qaalu ñoom ñu ne yaa abana yow sunu baay maa nabgi la la ñuy sàkkuwaat haadi bidaatunaa xool sunu xaalis bi ruddat ilaynaa delloo nañu ko ah seen baay ne kon xaalis bi ngeen ko delloo ñu dañoo jum de dañoo jum jël na xaalis bi ngeen delloo ko waaw waaw ñu ne wa namiru ahlana ñu gën a ñu ñu defal ak genc suñu waa kër mu nga mooy ak rënk namir mooy ak rënk maanaam rënk moo xam ne ak ak lekk ak lekkal goo xam ne dégg nga maam dañ koy denc bu ñu tukki wa namiru ahlana wa nahfadu axaana ñu wartu suñu rakk ji wa nasdaadu kayra bair ñu dolleeku war kon geneenu jëgg goo xam ne dañ koy boole ci njëgg ya muy fukk ak ñaar fukk ak benn dalika kayru yasir suñu borom ne ñoom ñu ne yo yow sunu baay yëgal ne daal buur bi daal natt gu yomb la ñuy nattal natt gu yomb la ñuy nattal ah seen baay ne la kon garaawul mën ngeen a dem waaye nag balaa ngeen di dem am na lu ma war am na lu ma war ak yéen damaa bëgg ñu signé benn benn kóllëre man ak yéen kóllëre googu moom la seen baay di nettali juróom benn fukk ak juróom benn qaala wax na leen lan ursilahu du ma leen yebal mukk ngeen ànd benyamin nii maakum mu ànd ak yéen hatta lu dul ngeen indil ma mawsiqan ak kóllëre goo xam ne min allahi ci yàlla lay doon la tatunna nii da ngeen ma ko indil bii ci moom illaa an yuxaata bikum lu dul ak musiba mbaabu ku ma daal lu wër ci bépp wàll du ma leen bàyyi mukk dégg nga ngeen ànd benyamin nii ne da ngeen may fasante ak man ak kóllëre ne da ngeen ma ko indil lu dul musiba baaba kumba goo xam ne dégg nga maam da leen di wër ci gépp wàll mu ngoog moo tax mu ne après ñu ne ah kon garaawul bàyyi loolu fekkee loolu kese la moom daanaka loolu euh, amul ak muskila ñu daa def kóllërante ak seen bàyyi ndaka yow bàyyi ñu ngi kóllërante ak yow ne Binyaamin daanu ko indiwaat dégg nga te dara du ko jot ñu daa def seen bàyyi ko joxee mawsiqa min allahi seen kóllëre ga ca yàlla la taatunna nii bii moo tax ñu ne fa lamma aataahu bañ ko joxee mawsiqahum seen kóllëre qaala allahu ala ma naqul wakiil seen bàyyi ne li ñu wax fii yépp nag ñu ngi koy wékkal suñu borom yàlla ñoom ñu ne seen bàyyi ñu ngi kóllërante ak yow ne binyamin mii dégg nga daanu ko indiwaat te dara du ko jot ba ñu kóllërante ak moom ba pare seen bàyyi ne ñun de ñu ngi wëkkil suñu borom yàlla si li nga xamante ne moom lañ fas seen baay nag commencé di leen dénk war nañoo dem sa misra te xam ngeen fukk lañ dégg nga ak benn ñu rafet lool te taaru te xaw a tolloo te loolu xam ngeen moo cat mën na leen a dugg moo tax seen baay di leen di leen dénk dénk yii moo tax mu ne waqaala wax na yaa bunayya yéen samay doom boo leen demee sa ndëkk bi di misra laa tadxulu bu leen dugg mukk min baabin waaxidin ci benn buntu de boo leen demee ba àgg ca dëkk ba boo leen dugg sa marché ba bu leen jaaree si benn buntu waaye nag na ngeen jaar waduxulu min abwaabi mutafarriqa na ngeen dugg ci bunt bi taxali ko bu ñaar duggee ci buntu bii ñaar dugg ci bunt bi ñaar ñi dugg ci buntu bee waaye yéen ñëpp fukk ak benn bu leen dugg noo ci benn buntu nit ñëpp mën leen a xool wàccat mën leen a dugg wa maa ugnii manuma leen a jare ankum si yéen min allah ci yàlla min shay'in ci dara de mu nga yëgal ne inil xukma ab atte ñeenul illaa lillah lu sunu borom yàlla alay ci moom tawakkaltu moom laa dénk sama mbir wa alay ci moom fala tawakkal na dénk al mutawakkiluun képp kuy dénk dara de képp koo xam ne da nga bëgg wëkkal dara na nga wëkkal sunu borom yàlla yaqub ne leen damaa bëgg boo leen demee ba sa marché ba bu leen jaar si bindu buntu waaye da ngeen jaar si buntu yu tàqale ko waaye nag bu cee sunu borom yàlla mu àtt cee mënuma si dara attab yàlla mënuma dara ci yéen ci attab yàlla ah, léegi nag ñu daal di départ dégg nga daal di jëm sa misra ànd ak ya ànd ak Binyamin ba ñu ñëwee ca misra ba dégg nga ñu dugg ba sa marché ba ñu daal di tàqale ko ñu ne ah suñu bàyyi da waxoon ne bu ñu jaar ñu ñëpp ci benn buntu nañ tàqale ko ñu tàqale ko ñi jaar nii ñi jaar nii dégg ñu daal di dugg ba ci biir loolu la Alxuraan di nettali ne walamma daxalu yëg na ba ñu duggoo min xaysu amarahum fa leen fa leen digalee abuwum seen baay maanaam seen baay la mu leen waxoon ne leen bu leen jaare si bindu buntu na ngeen jaar si buntu yi taxali ko ñu daal di def noonu waaye nag maa kaana nekkul yuuxu nii di leen jëriñ anagum ci ñoom minallaa ci yàlla min seen ci dara amul dara nag loo xam ne mën na leen a fankal ndogal boo xam ne suñu borom atte woon na ko ci ñoom déedéet nekkul ne bu ñu jaare si buntu yi taxali ko loolu day dolli day delloo ndogal suñu borom yàlla day déedéet yàlla lu mu àttee dana leen dal jaar si buntu yu taxalu ko mënu koo mënu koo dindi moo tax mu ne illaa nir dafa nekk daal xaajatan ab aajo fi nafsi yanquba ci jëmm yanquba qadaa ñu daa koy atte ñoom daal seen wax ne la dugg ci buntu yu taxalu ko daan ko def mu nga ñu daan ko appliqué ndigal gi nga xam ne seen bàyyi moo leen ko joxoon wa innoo yëgal na yanqub daal la du ilmin boroom xam-xam la de lima allam naa sëriñ ko xamal maanaam xamal nañ ko xam-xam boo xam ne xam-xamu nubuwa walla mu nekk ab yonent walakin wante daal aksara naasi lépp si nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu de mu ngoog suñu borom continuer ñu daal di dem daal di départ ba ñu demee ba àgg léegi nag Yaaqub toog ndeysaan gisatul Yuusuf gisatul Binyamin affaire bi def ko ay njàqare ak ay naqar ki tiis mu toog ndeysaan di mébét di xemem yuusuf rek xel mi yépp nekk ci yuusuf ndeysaan njaaxare yooyu ak tiis yooyu nga xam ne moo ko dal loolu la Alxuraan di li léegi ba ñu demee ñu daal di dugg ci biir marché ba yuusuf daal leen gànne ni leen ñëw leen ñu daal dugg ci biir pale bi ba ñu duggee yuusuf daal di gis Binyaamin daal di kontaan ndeysaan waaye nag Youssouf bu ngi préparé benn plan boo xam ne foofu la war a jaar pour récupérer Binyamin na la war a def Alxuraan mooy nettali nee na walammaa yëg ne jamono ba nga xam ne daxalu dugg nañu ala Youssouf sa Youssouf Youssouf gane la leen ñu dugg si biir pale bi aawaa fatna ilay ci moom axaawu frère ba na Youssouf daal di daal di jël Binyamin na ko kaay yow kaay yow maa yow ñu ñu waxtaan. mu daal di jël xëcc Binyaamin si pet ñoom ñaar ñu commencé waxtaan qaala Yuusuf ne ko inni yëgal ne man mi daal ana axuuka maay sa frère man mi maay Yuusuf mu raa koy wax Binyaamin dara ko koy déey ne ko nag falaa tabta'is bul am benn njàqare bi maa kaanu yaamaluun ci li nga xam ne moom la ñuy def plan bi nga xam ne ma ñu war a tëral bu ci tiit bu su raf man maay Yuusuf te dinaa tëral benn plan boo xam ne dinaa si jaar pour pour nga mën a nekk nga mën fay nekk ah mun ne ko garaawul léegi ñu commencé toog di waxtaan ñun tamit ñuy waxtaan fere di waxtaan ñun ñëpp ñu waxtaan di lekk di naan ci biir palais bi dégg nga plan ban la Yusuf war a tëral benn plan la war a tëral pour récupérer Binyamin plan boobu la Alxuraan di nettali ci ay juróom-ñaar fukk déglu sunu borom su ma leen falammaa jahazahum ba mu leen waajalee bi jahaazihim seen njëgg ya mu diwle seen kopp ya nattal leen diwle seen njëgg yi ba mu fees del waaye nag am na lu xew. jaala def na siqaayata kopp ba fii raxli axiihi ci njëglu frère ba Yuusuf daal di jël benn kopp dégg nga kopp bi nga xam ne buur bi sala daan naane benn kopp la boo xam ne dégg nga maam or la mu daal di koy jël daal di koy dugal si saagu Binyamin bi li xewee suma après azzana yëgal na oote na mu azinu ootekat ba mu ne ay yetuwal iir yéen borom jëgg ya indi na innakum yéen daal la saarixun ay sàcc ngeen problème am na problème am na de ñoom bu ñu demee jël seen njëg yi ba noppi dem bay préparer sori rek am benn waaye bu ne eh yéen gars boroom borom njëg yi fay daal di tourné ne lu xew mu ne ne eh yéen moom ay sàcc ngeen hmm? di de doy na waar moom la Alxuraan di ne qaalu ñoom ñu ne wa aqbalu ñu daal di dëgmal. alayhim si ñoom ñu ne leen maada tafqiduun waaye lan ngay ñàkk lan moo réer si yéen ba ngeen ñu jiñ sàcc lu xew lan ngeen réeral ñoom ñu ne leen xaalu ñoom ñu ne tallaahi ñu ngi gin ci yàlla xaalu ñu ne nafqadu ñu daal ñu ngi wër suwaa almaliki kopp buur bi la ñuy wër mu nga la ñuy wër man moo réer te am nañu yaakaar ne yéen ñi yéen a ko jël hmm? buur bi yemul ci daane wali man ñeel na ka nga xam ne jaa bii moom indil kopp boobu ximlu bairin danaa ko duyal ak njëgg ba mu fees del del del wa wa ana man daal zaimun aji asiral la bii ci loolu ki nga xam ne moom indil kopp buur ba asiral naa ko dinaa ko duyal njëgg gëlëm ba mu fees del dara ko koy neexale ah, gaa yi seen bopp yi dëgg la ñoom kàccoor nañu lool waaye ñoom bokkul seen jikko nag ak sàcc nag sàcc nag bokkul ci ñoom ñoom ñooy sara seen bopp ñoom daan ne xaalu ñoom ñu ne tallaahi ñu ngi waat si yàlla laqad alimtum sa dëgg-dëgg yéen xam ngeen ne maa ji naa ñëw ñu fii lu nufsira fil ard ngir yàq kow suuf de wa maa kunna nekkuñu saariqiin nekk ñu ay sàcc ñun ñii nekkuñu ay sàcc ñëw ñu pour yàq kaw suuf dégg nga te ñun nekkuñu ay sàcc waaw damaa bëgg seen code bi nag ma ngeen koo xool waaye nag xam ngeen ne ñun ñii dëgg dëgg du ñu ay sàcc te ñu ay yàqkat si kaw suuf ah xam ngeen dafa am benn stratégie boo xam ne Yuusuf moo la tëraloon mooy sa waa Kanaan bu amee ku sàcc su ñoom dégg nga ki sàcc dañu koy téye ñoom loolu mooy seen atte mais bu fekkee ci buur bi nga xam ne moo nekk ci misra seen atte foofu mooy képp koo xam ne dafa sàcc dañu lay dóor ba ñu tëj la prison kon loolu arrangé wul Yuusuf ci ci gi moo tax mu ne kon damay fexe ba ñoom ñu nangu ñu appliquer seen règle maanaam ku sàcc yow la ñuy loolu la Alxuraan di nettali fii moo tax ñu ne xaalu ñoom ñu ne fama jazaauhu wala la ñuy fay ki nga xam ne moo sàcc kopp bi in kuntum kaadibiin bu fekkee waxu leen dëgg bu fekkee da ngeen nekk ay sàcc waaye bu fekkee dañoo gës su fekkee ne yéen am na ko sàcc seen kopp bi moom la lañ koy fayee gis nga Yuusuf dafa tëral lii ngir bëgg rek ñoom ñu ne leen ah kon nañ ko àttee ñun li ñu xam li ñu xam nag mooy ku sàcc yow la ñuy téye moom itam moo tax ñu ne xaalu ñoom ñu ne jazaa'uhu lañ koy fayee daal man wujida koo xam ne fekkeef na fii raxlihi ca njëgëm fa huwa jazaa'u kooku ngeen di jàpp loolu mooy fay koo xam ne daal gëstu ngeen ak njëggam fekk fa kopp ba jël leen kooku kooku mooy sàcc bi loolu mooy fayam kadalika nag noonu daal najzi zalimin nii lañuy ñuy fay tooñkat yi de ah Yuusuf daane kon garaawul kon que yéen yéen a yéen a yéen a taamu atte bi nga xam ne moom la ñuy tër ki ñu fekkee ci moom kopp bi kon garaawul na la ñuy def mun a acca xool njëgg yi waaye ñoom ba ñuy xool njëg yi tamit njëg maanaam bu fekkoon leen dañuy xool ñu ñu ne tàmbali leen dañu tàmbale ci njëgu Binyamin fekk fa kopp ba nit ñi mën nañoo am ko njortu ne ñii ñoo fi def kopp bi dégg nga moo tax Binyamin laalu ñu sax njëggam ñeneen ñu fa fa lañ fa si seexa yi fa lañ njëkkee départ ne nañu xool si njëgg yële tàmbali fi tàmbali fi tàmbali fi daal di mujjal bu Binyaamin ndaxte Binyaamin bu ñu ko njëkkee woon rek dégg ñoom noonu la ñu njort ñii dañ fay def kopp bi loolu la Alxuraan di nettali moo tax mu ne fa bada am ñu tàmbalee gëstu bi awayatihim si seen njëgg yi si seen ndab ya foofu lañ njëkk a tàmbalee xabla wi ay axi li jiitu ndabal Yuusuf seen i ndab la njëkk a commencé gëstu commencé yelbati benn par benn summa après istaxrajaha ñu génn kopp ba min wiaayi axi si ndabal yuusuf si si ndabal binyamin ñuy gëstu di gëstu ba si egg si ndabal binyamin ñu gëstu rek daal di gis kopp ba problème am na ñu ne ah kon de binyamin la ñuy jël comme que si moom lañu fekk kopp bi te yéen yéen a waxoon ne képp koo xam ne ndabam fa la ñu fekk kopp ba dégg nga mën ñuy téye daan ah yéen sëñ bi yow juuma ah mu leen ah li ngeen waxoon de moom lañu am kopp baa ngi nii seen ndabal binyamin lañ ko fekk ah Yuusuf fexe nag nag ba récupéré ki nga xam ne mooy Binyamin suñu borom loolu lay nettali fii daan ne kazalika naka noonu kidnaa la Yuusuf la ñu jàppandale Yuusuf mu tëral ay stratégie ba mën a récupéré Binyamin mu ngoog maa kaana nekkul woon di jaadul yaaxusa muy jël axaahu Binyamin fii diinil maliki ci religion buur bi waxoon naa la religion buur bi mooy ku sàcc moom bu ñu la jàppee dégg maam dañu lay rey baa ñu lan baa ñu tëj la prison moo tax moom ba fexe ba ñu bàyyi atte bi nga xam ne buur bi loolu lay atte woo mu ne yéen lan ngeen xalaatee ñu atte leen ko bu fekkee yéen a sàcc ñoom ñu ne ku sàcc daal jàppaleen leen kooku ngeen yóbbu ko moo tax mu ne maa kaana lu yell an yaaxusa muy jël axaawu frère am ba fii diinil maliki ci religion buur ba illaa an yashaa allah lu dul ne dafa neex suñu borom yàlla mu fexe ba tërale mbir mi noonu ba nga xamante ne Yuusuf dana mën a récupérer rakkam ja nana foog ñun yàlla ñu yëkkati darajaatin ay tëra daraja man nashaa ku nu soob de wa fawqa kulli zi ilmin nekk na si képp koo xam ne borom xam-xam la nekk na ci kawam zi ilmin borom xam-xam alimin koo gën a xam nekk na ci képp borom xam-xam ku ko raw maanaam la dafa bëgg wax ne képp koo gis mu am xam-xam rek am na ku ko raw waaw ndax Yuusuf lii nii stratégie bi maanaam ak ak la goo xam ne dafa nekk ci moom xam nga sunu boo arrière tuuti. sunu borom waxoon ne walamma bala asuddahu aataynaahu xikma wa ilma joxoon nañ ko xam-xamu xereñe ak xam-xamu nubuwa xam-xam googu nga xereñe googu nag moom la Yuusuf utiliser fii ba mën a récupérer ki nga xamante ne mooy Binyamin dégg nga ah bi gisee ndab li rek ci kopp bi ci ndabal Binyamin déglu lu fereere la ñu wax ñii baaxuñu de ndax wax ju bon ji ndax ngeen ko ndax nañ ko mën a waxalee koo xamante ne ñoo bokk benn baay lan la wax loolu la alxuraan dina te la xaalu ñoom ñu ne in yasrix bu fekkee binyamin mi dafa sàcc faqad saraxa sàcc na axul lahu frère bi nga xamante ne mooy yuusuf min xablu bu ko jiitu woon bu fekkee binyamin mi moo sàcc kopp bi yëgle ne du ñu bett ndax magam yuusuf tamit ab sàcc la woon allahu akbar fa asarraha ba ñu waxee wax ji yuusuf mu ngi jàkkaarloo ñu mu ngi dégg lu ñuy wax yuusuf daal di nëbb ay waxam wax la si xam daan ne fa asarraha mu nëbb yuusuf yuusuf fi nafsi si xelam mu ne walam yubdiha lahum waxu leen ko sa kaw de lan la wax qaala yuusuf daan ne antum yéen daal sharrun makaana yéen a yées wàccuwaay yuusuf moom nga xam ne yéen a ngi koy sàccal na dafa sàcc ak binyamin mii tamit ngeen koy jiñ ak sàcc yëg leen ne yéen yéen a yées bërëb boo leen wàccee sa Binyamin muy ak Yuusuf wallaahu bu yàlla alamu bi maa tasifun yàlla moo gën a xam ni ngeen def de waaye Yuusuf wax jii moom waxu waxu waxu ko si kaw da ko wax si xelam rek daan na yéen yéen a dëkkal Yuusuf yi si sàcc ak rakkam jii di Binyamin yëg leen ne yéen a yées waaye nag da ko wax ci xelam ah léegi nag danañu récupérer Binyamin léegi nag ñoom xam nañ ne dañoo kóllëlantu nag seen baay dégg nga daan nag yow baay Binyaamin mi daana ko indiwaat te fekk Fir'awn bi wóor na ne buur bi moom day téye Binyaamin ah ñu commencé négocier ak moom négocier gi moom la Alxuraan di nettali ci ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett qaalu ñoom ñu ne yaa ayyuhal aziizu e yow buur yëgal ne inna lahu ñeel na xale bi aban bàyyi joo xam ne say sayxan dafa jëm mag de kabiran dem na mag lool yëgal na xale bi nga nar a jàpp nii bàyyam dafa nekk mag fa xuz te ngaa jël kenn su ñun makaanoo mu wootee ko te ngaa jël kenn su ñun nga bàyyi xale bii mu dellu ci bàyyam ndax bàyyam dafa jëm mag te bàyyam moom dañoo këloon tax moom ne daan ko indile sa doom ji te ngaa jël kenn su ñun innaa naka ñun daal naraaka gis nañ la si muhsinin nga bokk si ñuy rafetal de ah te ngaa rafetal rek nga daal di jël kenn si ñun daal di bàyyi xale bi mu dem ca baayam ndax baayam dafa jëm mag de ah buur bi war leen a tontu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent moo tax mu ne qaala maada allah qaala maada allah أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال بور bi ne leen معاذ الله ñu ngi muslu si sunu borom yàlla an naaxuda ñuy jàpp di jël keneen koo xam ne bokkul ak ki ñu fekk ci moom kopp bi moo tax mu ne du ñu jël illa ndere man wajadana koo xam ne fekk nañ ci moom mataana sunu bagage yii indaw fa moom bu ñu ko defee inna kon daal ñun daal la zalimuuna ay tooñkat lañu bu fekk dañu fay bàyyi kii nga xam ne dégg maam si moom la ñu fekk kopp bi ñu ne ko fi tegg dem jël keneen koo xamante ne jàppul jéegul ah kon ñu ne ay tooñkat lañu ah si li soo amul bi ñu xamee ne nag buur bii caaxaanul ndax day jël Binyaamin ah ñu ne ko gaañ na la def léegi ñoom ñu commencé ngoo ñu daal di beru ñu daal di beru commencé taxaw di waxtaan waaye yow Yahuza na la ñuy def buur buur bi dana dana jël Yanqub dana dana jël Binyaamin te ñu dañoo kon ak suñu baay waaye ñun na la ñuy def ñu jaxle nañu de nañ doon déyantee noonu loolu Alxuraan di nettali ay sunu borom moo mën a nettali xoolal stratégie bi nga xam ne lii moom. ku ko fekkewul dëgg dëgg dëgg mbir mi mënoo koo nettalee ni yàlla day nettali sax ba ba ñu wéetee di nettali ak dañu doon déyantee suñu borom indaale ko moo tax mu ne falam mastay asu ba ñu demee ba xaddi minu si binyamin ba ñu demee ba xaddi ne wóor na moom buur bi moom lank na du jël keneen ku dul binyamin xalasu beru nañ na ji yéen ñu commencé déyante ñu daal di beru dégg nga ñu commencé déyante xala daal di wax kabirum ke mag sa ñoom mooy yahuza moo mag ca ñoom daan ne alam taalamu xanaa yéen xamu leen ne ana abaakum sax seen baay qad axada dafa jëloon aleykum si yéen mawqisan ak kóllëre min allah ci yàlla xanaa yéen da ngeen fàtte kóllëre gi ngeen fasoon seen baay yéen a waxoon ne binyamin nii da ko indiwaat xanaa loolu da ngeen koo fàtte ah, wa min far wa min qablu ak woon maa farratum fi yusuf mbir mu ëpp ma nga xam ëppaloo ngeen ci sa Yuusuf dégg nga kolorante woon ngeen seen baay jël Yuusuf ngeen ko indiwaat ngeen sànk Yuusuf tey jii tamit dégg nga ngeen kolore seen baay ngeen ko indiwaat Binyaamin te Binyaamin nii buur bi jàpp na ko ah lii moom rëy na de yëg leen ni falan abrahal arda man de suufu misra fii du ko génn de du ma génn dëkk bi mukk hatta yaazana lii abi lu dul ne sama baay moo naa man yow yaa wusan ñëwal ma soog a ñëw man moom kóllëre gi ma fasante sama baay am naa kersu lool di delluwaat si sama baay lu dul sama baay daal moo ma jox ndigal ma ñëwal ma soog a ñëw aw yaxkuma allahu lii wala yàlla àtte sama diggante Binyaamin mii ñu soog ko bàyyi mu delluwaat lii mooy tax ma soog a dellu dëkk ba moom yàlla daal xayrul xaakimiin moo dàq àtte kuy àtte de yëgal ne yéen daal kóllëre gi nga xam ne fasante nañ ko ak sunu baay man am naa kersa bu delluwaat sama baay yëgal ne suufu misra bii du ma dañ du fi ba keroog sama baay na ma yaaw saa ñëwal dara sunu baay atte sunu diggante ak Binyaamin mi may soog a delluwaat ca dëkk bi mu continué ba tey moom mu yaaw saa di leen di di leen di leen di mu ne irjiu dellu leen ilaa abikum si seen baay fa xuulu ni ngeen ko wax yaa abana yow sunu baay inna ibnaka sadaqa sa doom ji dafa sàcc de dem leen si sama baay ngeen naka doomam jii di dañ koo jiñ ak sàcc wa ma shahidna ñun du ñu seede de illa bi ma alim naa lu dul lu ñu xam dem leen si seen baay ngeen wax ko loolu wa ma naa nekk ñu lil xaybi bi ñi ko li faggu xaafidina di ko wattu ñun li nga xam ne dafa wottu nekk ñi nga xam ne da nga maam dafa dafa fàggu ci ñun mënuñu koo xam yëgal na daal yow baay ka nga xam ne mooy Binyaamin dañ koo jiñ ak sàcc ah ñu nag xamuñu xëy bu nag en tout cas daal kopp ba réer na ñuy seet kopp ba ñu daal koy fekk ci la nga xam ne dégg nga mooy ndabal sa ndabam ñu daal koy jàpp yow bàyyi nag gëmoo de waaye nag was al ñu laajal alxariyata yaa ni ahlal xariya was alil ahlal xariyata la ñu doon maanaam laajal waa dëkk ba was alil xariyata mooy was al ahlal xariya dama laaj waa dëkk ba allati bi nga xamante ne kun naa fiyaa fa lañ nekkoon de wala iira lati laajal waa dëkk waa waa waa borom njëgg la wala iir tamit moom ngay wax rek ahlal iir ngay wax boo nee as ahlal xadiya tamit ahlal iir ngay wax laajal borom borom njëgg ya alati yi nga xamante ne axbal naa dëgg ba lañu fi yaa ci moom wa innaa naka ñun daal la saadiquuna wax nañu dëgg de yow bàyyi wóor nañu yow lu ñu wax ñii gëmooñu waaye bu fekkee gëmooñu demal nga laaj dëkk ba nga xam ne fekk nañ ko bu la neexee tamit mën nga laaj borom borom njëgg yi nga xamante ne fekkoon nañ ko ah ba ñu waxee lii seen baay tamit amaan ak njàqare yóbbu nañ yuusuf sànk ko dégg nga ñëwaat jëlaat binyamin sànkaat ko seen baay la leen tontu qaala wax na bal li fi nekk daal sawalat lakum taaralal na leen anfusukum seen bakken amaran mbir mii de seen bakken moo leen taaralal lii fa sabrun jamil waaye nag dara waruma lu dul danaa muj muñ gu rafet asa allahu mën na am sax bur yàlla ay yaatiyee nii mu dikkee ma biim ci ñoom jamian si ñoom ñaan ñépp de mën na am sunu boroom yàlla mu indil ma yusuf indil ma binyamin innahu naka moom suñu borom huwa moom daal alimun ku dañ ci kompa la waaye ren xakim ku xarañ la dafa xarañ ba nga xam ne lépp lu mu def loolu la lépp lu mu àtte noonu dog la mënoon tëdd ba mu leen waxee li ba noppi seen bàyyi daal di continuer wa tawalla mu dumboyu an um ci ñoom wa qaala mu daal di wax yaa asafa sunu borom mooy nettali uh, ba ba mu meree ba dumboy woon ginnaaw sunu borom daal di nettali xaal ba nga xamante ne dégg nga yànqu fa la nekkee moo tax mu daal koy wax yaa e nga xam ne aji njaaxarewu la ala yusufu si yusuf wa abyadat mu daal di weex ay naahu ñaari bëtam nee na ba bu mu demee biñ ko waxee lii dégg nga Yanqub dañul di jàmbat Yuusuf ak di am dégg nga ay métit ak ay njàqare tiis dégg nga ba ay bëtam dem ba weex ndax jooy yi mu doon jooy allahu akbar moo tax mu ne wab dayat ay naa ñaari bëtam yi daal di weex ne xusni si njàqare yi nga xam ne am na ko foo moom daal kazim mu ngi nëbb ak meram dafa mer mer na li nga xam ne mooy ay doomam ndax yóbbu nañu Yuusuf sànk ko yóbbu Binyaamin sànk ko mu toog di njàqarewu dégg nga ak di jooy ba ay bëtam daal di weex bëti daal di muuru ngir njàqare gi nga xam ne am na ko kon euh, nañ jamone foofu incha allahu rabbi euh, bu beneen yoone incha allah ñu soog a jël ci aaya nga xamante ne moo ci topp di aaya euh, juróom-ñett fukk ak juróom in uridu illa islaahu ma stataatu illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh